asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi toog ak Bourkhane Wade ngeen xam ko dëkk Pikine di manager Boy Niang nekk ku yëngatu ci làmb fan yi nag coow li bëri na ci làmb ji Ama Baldé Modou Lô Boy Niang Balla Gaye numéro 2 mais en même temps dañu jóge ci combat seen diggante ak Lac de Guiers ñàkk combat ba père maa ngi lay nuyu di la ziar. auzu bi kalimaatillaahi taammaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci ñu ngi nuyu waa Lew euh, Leewtoo yëpp euh, di ñaan yàlla jàmm wàcc ci réew mi euh, dëgg la Babacar coow li bari na mais xam nga lam moom am na coow mais amul problème. léegi damaa bëggoon balaa ñu dem ci coow loolu ñu jëkkee da ngeen jëloon mbër boo xam ne dañu VIP la mbër bu mag muy Lac de Guiers numéro 2 ngeen ñu bëre ak moom. sénégalais yu bëri wala fa ñu mujjee mooy mënu ngeen ci moom dara ba da ngeen sax mujjee ñàkk combat bi par recours loolu après loo mu ci mën a loo ci mën a diggaatal pour sénégalais yi. waa xam na euh, santaat yàlla bu baax parce que bés bu nekk ak li ci war a xew bés boobu loolu moo ci waroon a xew booy ñaan nag amoon na préparation bu baax am na sax ñu may dégg ñu naan dafa sonn ci combat bi nangam nangam mais sonn dafa def quinze premières minutes am mu def quinze premières minutes yu baax. mooy attaque adversaire am moo koy touché moo koy yóbbu ardo moo koy song quinze premières minutes yi jeex mu war a reprendre les yeneen quinze premières minutes yi quinze dernières alors bi mu ñëwee ñu changé stratégie ni ko téyel sa bopp téyel sa bopp tamit warul tax nga taxaw rek di def euh, maanaam bañ a def ay gestes de waroon na au moins def ay balancement de bras wala yu mel noonu mais puisque dafa ko arbitre bi gis ni passivité la avertir ko bu mu tolloog adversaire am mais combat boo xam ne da ko waroon na gagné même bu koy gagné par point da koy gagné yàlla dogal na la mu ca dogal mu am chute am ca man doon combat bu mu bëgg sax muy song parce que bu fekkee ni man maa lay touché maa ma ma maa lay déplacé loo maa la yóbbu ardu kon jarul ma yàkkamti dara loolu am na ci combat ba yàlla dogal aussi bi recours amee ñu jox Lac de Guiers victoire ñu sant yàlla bu baax di wax ni rek nit ñi il ñu comprendre sooy passé di passé boo def première def terminal boo defee bac dootoo retourné waat di def première. dootoo def da ngay defaat bac. da ngay defaat bac. waaw defaat bac bu nañ ci ñëw mais tamit. dinaa di si Lac de Guiers parce que Lac de Guiers est-ce que du yéen la ngeen foogoon ci moom ci côté da ngeen koo dàq bëri wala ngeen ko gën a doon xale est-ce que bi ngeen demee est-ce que du da ngeen faa fekk lu bokkul ak loola. ñu fa ñëpp fekk lañ fa fekk. lu ngeen fa fekk. fekk nañu ni. waaw Lac de Guiers mbër la boo xam ne dafa am stratégie. stratégie bi mu am. ñi ko ci ma ñi ko ñi nga xam ne daal mën nañoo fexe ba ba jouer gagné ko. ñu néew lañu ci Sénégal. maanaam bu ma la déggee maanaam mbër yi tey pour ñu désuwee si Lac de Guiers bëriwul mbër ñu ko mën. bëriwul parce que kenn moo ko fi daan. mooy Eumeu Sène. bal euh, euh, Modou Lo bi muy bëreeg moom. gagné na ko par point. ci waaw mais beneen bi dañoo nul. ok kon tey lépp lu ñuy wax ci un grand lutteur. Lac de Guiers mu ngi ci moom. lu ñuy nee Balla Gaye lu nekk. mi ngi ci mu ngi ci Lac de ba pare Lac de am lu ëpp loolu encore. am lu ëpp lan. ëpp li Balla Gaye yor. Ah. am na maîtrise ba nga xam ni yow mënuloo koo daan. te moom bu amee occasion daan la. Balla Gaye ñaari defet la am. sawar ngeen ci mbojum Balla de yéen. <laughs> sawar nañ ci parce que mbër la comme tout le monde dama lay fàttali benn affaire rek Babacar. bi Balla Gaye di bëri Yékini. boobu bëriwul ak Bombardier. boobu bëriwul ak Tapha Tine boobu bëriwul ak Gris Bordeaux te pourtant bëri na ak ak roi de arènes waaw yéen kon fi mu foofu ngeen teg seen loolu ngeen ci loolu ngeen jàpp ba tax fi mu nekk ni ngeen jóge ci Lac de ak defet ba ngeen fa jëlee ngeen ngeen bëgg a taxawu Balla Gaye rek ne kut ko kut di ngeen bëree ak moom dama ne la sooy passé di passé di passé ba yegg bac nga def bac amoo bac dootoo demaat première hmm, doo demaat première déedéet da ngay defiwaat bac mais est-ce que Balla Gaye ak Boy ñan est-ce que loolu da man Boy Niang mën na dara si Balla gay 2. non du mën nga dara ci Balla si ci ci Balla Gaye yàlla rek moo mën ci Balla Gaye dara. non bu ñu xam nga yàlla mu wax ci côté bëre bi laay wax man. côté bëre bi la ñuy wax. waaw lenn moo ci nekk. Balla gay bi mu ci tolloo. nee naa la bëriwul ak Bombardier bëriwul ak Tapha Tine bëriwul ak Gris Bordeaux te bëri naa. ak eh, bëri naa Yékini. mais est-ce que bu muy bëri ak Yékini dafa defe lu tax mu bëri ji ak Yékini jamono jooju wala. waaye ñoom da ma jàpp ci yow su fekkee ne PAM li la wër yëpp bëri naa ak ñoom. boo de Guiers ne Boy Niang ne ne ne Balla Gaye est-ce que Sénégal dinañ ànd ak yéen ci loolu. Sénégal yi ñoo ko bëgg man bëgguñu ko de damaa bëgg combat gis nga man suñu ñëpp ci man duñu wax sax Balla euh, kii Boy Niang mais Sénégalais yi ñoo bëgg Balla Gaye Boy Niang Ama Baldé Modou su ma seetloo da ngeen am lu ci kër ci waa kër Double Less parce que jóg ngeen ci Sa Thiès léegi ngeen joxoñ daal ne ne rek nga xam nga tey ñaari doomu Pikine bu ñu nekkee kenn du xëcc sa adversaire u te Ama Baldé mënul bëre ak Balla Gaye kon Ama Baldé Modou Lo rek la mën a bëreel Boy Niang Balla Gaye rek la war a mën a bëreel loolu làmb moo ko soxla amateur yi ñoo ko soxla mais techniquement sa mbër am na bagage technique bu daan Balla Boy Niang war naa mën nekk roi des arènes dama ndax am na techniquement bagage bu daan Balla Gaye waxaguñ ci roi ba bagage technique doo nekk roi des arènes Balla Gaye laa wax de ba tey père tontoo góoma de ndax am nga bagage technique bu ko daan waaw am naa bagage technique bu ko daan mais dama ni ku amul bagage technique doo nekk roi des arènes seetal ñu nekk roi des arènes rek ñu ko fi nekk ñëpp ñu am bagage technique bu tax ñu mën a nekk roi des arènes c'est comme président laa la république du n'importe qui mooy nekk président fii tamit du n'importe qui mooy nekk roi des arènes dama leen dama ndax ma booy ñaar dégg naa ko micro bi bëri laa dëggee ba pare moom mu ne kaasu fonde bi des Balla Gaye ko moom na ko naan si wala ñu yóbbu ko ba biir këram ba tey daal yéen ngi ku ku bëgg a jox fonde bi. Euh, nee naa la xam nga man am na jamono xam ma soxlaatul sax ñun toog di wax Balla Gaye léegi Balla programme su ne moom ci ba war a bëreeg moom nee na lu amateur yi bëgg loolu la bëgg kon kay kooku amatul lu muy wax kii la ñuy wax Balla Gaye la ñuy wax niveau kaay nga bëreeg booy ñun. booy ñun. waaw mais kenn du waxati booy ñun demal dëkk ba euh, Balla Gaye. promoteur mu ngi dox combat bi. waaw am na ñu koy dox. ban promoteur la. non man à travers suñu làmb laa gis mais man kenn ñëwul ci man wax ak man. ah dox kay bu ñu joxee yow mi mën a dese kay te xanaa bu a xam nga tamit su fekkee ne bind nañ ci presse bi. tey yaa ngi gis fi ñu bind Leewtoo nii Leewtoo mi ngi wax ak man te man Leewtoo waxul ak man hmm. yaa nga dégg waaw kon xam nga ne loolu ñoom ñooy bind rek pour wax mais kon daal kenn doxu ko ñu ngi koy dox parce que ñooñu li sax ñu wax ko bay dem ci presse bi di ko na am na luñ ciy def waaye man li may wax damaa bëgg suñu waxee ñu ne ma yaa waxoon ma ne waaw mais man promoteur ñëwul ci man ni ma combat Boy Niang Balla Gaye laa soxla ci yow. beneen bi ci des mooy ba tey Pikine ba Ama Baldé Modou Lô tamit coow li bëri na ci wala Ama Baldé Tapha Tine sax a njëkkoon ba ñu war a jóg génne avance mu xëy ba ci dernier minute. bi ma ko yëgee tey jii am na ñoo xam ne d'accord ñu woon ci Ama Baldé Tapha Tine. tax li tax d'accord ñu ci parce que ay risque la Ama Baldé tey jii alal li mu fi def yëpp li ko yokk mooy daan naa li mu fi def yëpp. yokk loolu mooy daan naa tafaatin kon te pion dam boo ko amee waroon na mu mu dee ah dam day naaw dam da daan tëb sa ba nu wootee ka dam yooyu voilà mu ngi noonu léegi te moom chance su war a bëri roi des arènes suñ demee ba biram ñu ngi nii dans une semaine peut-être dina jeex dañ ko ficelé kon sore nañ ci bëreeg Modou Lo titre roi des arènes yegg nga ci tableau bi soo amee chance nag laal tableau bi kooku moom benn affaire la. ah bien sûr. léegi su ma la laajee Modou Lo xam nga ko te defe naa xaw naa min Pikine ndax dugg na fa ñaari yoon suma ma jumul daan Eumeu Sène ba tey mu nekk roi des arènes Pikine est-ce que Ama Baldé mi li ma laajoon ci Boy Niang est-ce que am ngeen tamit lu mën ci du dara parce que Modou dégg naa mbir yi gën a sori ci Sénégal booy tànn mu di ko jiital wala mu nekk ci ñaareel place. Ah, dégg naa ni ñu di ko wax de. la ku bëgg entraînement la ku am stratégie la parce que taay bi mu am di bëri ak bépp mbër bu nekk ci Sénégal te nekkul pois poids loolu ku sérieuxul mënoo ko loolu moo dal Papa Sow entraînement ak euh, am hygiène de vie moo leen may loolu mais dama wax ni ku bëreeg Balla la deux euh, mu daan la deux fois. loolu ba pare ñu jox la combat deux mois après titre roi des arènes nga dem bëri ji ko daan xam nga diggante Balla Balla Gaye Modou Lo ak euh, Eumeu Sène kenn mënu wax ni ki yee mën kay. ni ñu daanante quoi. ni ñu daanante kenn ku ne daan sa morom ñaari yoon kon am cuune amu ca. mais Ama. Ama Balde laa wax. Ama Balde su amee chance su war a bëri ak Modou Lo titre roi des arènes. na jàpp ne tey tey tey tey des arènes la waaw. ndax am na chance su bëri ak moom. Ah, am chance su bëri ak moom su demoon bëri yéeg Tafatine daan ko kañ lay nekk roi des arènes. kon xanaa da ngeen ragal man maa ñëwul Tafatine. lu ngeen ci Tafatine. man laa wax de waxuma booy ñëw. nga Pikine nga dëgg yow boo ragal rek sax dire que si kàddu Pikine ngay waxe kon kay yéen loolu tax ngeen la avance Tafatine. sama bopp laa la wax. man maa ñëwul Tafatine. toog naa ci rajo toog ci télévision ne sama mbër bañul tafaatin. mais da man maa ko ñëwul. loolu wax ju leer naññ la. léegi ah, boo amee chance su bëri roi des arènes nga xam ne tey jii soo ko daanee bëri roi des arènes soo soo soo ko daanee nekk roi des arènes loolu dem di jëli beneen combat. Hmm? lañ lay fay foofu duñ la ko fay fii risque yi am foofu amul ci roi des arènes. kon kay jël zaare zaare na ko gën waaw. mais kon lu yéexal combat bi fi mu nekk nii parce que dégg naa waa Kër Modou pare nañ yéen waa Pikine ay ten day fal. waaw waa Pikine nag dañoo bëgg ñu yokk leen seen cachet li bi que soo mënee fay cent cinquante millions fële wala mënu fay fii cent millions au moins. yéen noonu ngeen ko gisee. ah man de noonu laa ko loolu moo kale combat loolu moo kale combat bi te béréb na fekk une dina taxaw dina dina taxaw. waaw loolu xam nga tam dafa am ay information mu xam mënuñu dindi ndax ñu koy wax ay nit lañu yoo xam ne mënuñu leen a weddi waaw mais nag des fois aussi euh, sa mbokk yi dugal loo xam ne dañ ci jaay seen journal. <laughs> tey fi ñuy jeexale mooy combat Papa Sow Siteu tamit taxaw na ko boobu noo ko gisee. neex combat bu neex combat bu boo xam ne amateur yi yàgg nañ ko bëgg ah il faut ñu xam ne tamit Siteu dafa am compétition. Papa Sow ñàkkul compétition ndax mu ngi doon entraîné ak Modou Lo même su bërewul sax mu ngi nekk ma mi ngi ci ay contact mu ngi ci euh, ànd ak am ànd ak ay xale yu yu yu am expérience yu am doole ba loolu rek mën na ko permettre mu am li mu soxla mais si te jógee ci MMA gagné alors te entraînement bu ñu entraîné foofu xam nga entraînement MMA dafa xaw a complet hmm. ah dafa am am na résistance am na li ci nekk daal dafa bari waaw waaw dafa bari bëri dafa bëri parce que box beeg lépp dafa bëri alors kon combat la boo xam ne nit ñi ñu ngi koy xaar man daal li ma message bi ma lancé euh, Babacar mooy làmb nekk na loo xam ni euh, li muy liggéey ci réew mi il faut ñu koy siiwal secteur la boo xam ni insertion ak réinsertion lay def réinsertion pour ñi nga xam ni seen àdduna yàqu woon na daanaka làmb moo leen defaraat amatuñu woon mbokk amatuñu dara tey jii seen situation euh, seen situation sociale vraiment c'est très élevé sànq rek maa ngi nuyu ceeg au passage maa ngi dajeeg moom foo ko làmb jële ak fi mu ko indi tey am na kër goo xam ne jar na presque cent millions mu ngi 4 4 ngi liggéey yaa ngi dégg am salaire boo xam ne mën na trois cent mille dem na màkk ñu ni bàyyi na làmb ay bàcc seeraas ak ñeneen ñu mel ni ñoom voilà kon làmb li mu defar bari te dañ ko war di siiwal soo xoolee tey jii écurie bu nekk lu mu dee dee mu am plus de cinquante mbër cinquante mbër yoo xam ni découragé woon nañu sax seen seen àdduna ñenn ñi jàng nañ seen métier mokkul sport li muy def ci ci yaramu doomu aadama ak defar sa xel parce que le sport augmente l'intelligence de la personne kon loolu dañ ko war valoriser état bi ginnaaw bi mu defee arène nationale ba pare na jël au moins un ou deux milliards ubbi benn compte dugal ko ci pour vulgariser làmb am na hmm. ba Balla Boy Niang ku dàq bëri. Boy Niang boo ñëw dàq bëri bal fuuf. am na solo kontaan nañ <laughs>